fay mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak Sud FM juróom-ñett waxtu mooy door a jot nu dooree mbir yi xabaar yi ci wàllu njàng mi amul benn amphithéâtre boo xam ne bii jot nañ koo defar mu baax daal ba nga xam ne daal mën nañ koo joxe mu no mu daal di sotti loolu fii ñu toll nii ci université Alioune Diop ba nekk fële ca Bambey loolu daal mooy li nga xam ne moo am mu wuute nag nee ñu ak li nga xam ne moom la ministre bi déclaré woon waxoon ko étudiants yi nag ñoom fi ñu toll nii dañuy nekk ci dundin woo ne wi ci daara joojule wu naqari la lool ak seen ay jafe-jafe ña fa toogal waa SAES nag ñoom bokk na ci kàddu yi nga xam ne jot nañ ko rotal foofe eh, kii di xam Mohamed ngoom eh, bokk ci SAES foofee ca Bambey waxtaan ci ak Adama Ndiaye. bi mu fi jaaree ba jàll daf wax ay wax yoo xam ne méngoowul ak ñun li ñuy dund fii Bambey. Eh, benn bi mooy dafa ne Bambey dafa am ñaari amphithéâtre yu bees. yu mu jot mais ñun ñu nekk fii xam nañ ne Bambey jotul ñaari amphi yu bees mais dafa am na fi benn salle bu 100 places ak benn bu 174 places bu ñu woowee petit amphi bu ñu defaraat bu yàqu woon ñu defaraat beneen bi mooy neewoon na day defar ay bureau pour enseignants yi defar ko defar bu gaaw mais ñun lu ñu constaté ay conteneur la ñu indil fii déposé ñu ko fi ak léegi gis ñu fi leneen coordination bi nag euh, mi ngi métti lu loolu bu baax parce que gis na ne euh, ni ko ministre bi waxee ak ni ko dundee bokkul beneen bi mooy néegu jàngukaay yi ñu fi am muy amphi yeeg salle de classe yi doyul ci université Alioune Diop de Bambey mais rax si dolli mënul dékku effectif bi ñu bi ñu ministre bi envoyé. Euh, leneen li ci li ci yokk mooy ci conditions sociales yi ak euh, dëkkuwaayu étudiants yi benn mooy balaa ñoo étudiants yi di lekk dañuy rang-rang boo xam ne dafay yàgg loolu ba day tax sax ñoom du ñu mën a jàng ni ko waree ou bien ñoom bu ñu dawee waree jàng soit dañuy bàyyi lekk bi dem jàngi. wala ñu lam lekk ji bañ a jàngi wala finalement bu ñu leen waree xaar ci cours yi cours yi dañuy dañuy mujjee tardé. Euh, beneen bi mooy Bambey ci boppam attanul attanul li mu étudiants yi yëpp yi ko ministre bi envoyé te di ko artu tamit ndax dégg nañ ci communication bi mu ne ci balaa yàgg bëgg na Bambey am. Euh, effective bi mu am mu yóbbu ko bu mu am quinze mille étudiants maanaam fukki junni ak juróomi étudiant alors que Bambey ci boppam ville bi attanul loolu fu ñuy daanelee que politique bu bon boobu ministre bi di def ak recteur bi mu ñu bi ñu fi tegal fii nga xam ne daanaka ñoom ñaar ñoo bokk doxalin euh, bu ñu changé wul ñoom en tout cas seen doxalin université bi fi mu jëm du lu baax te loolu ñun en tant que responsable dañ ci artu balaa dara di xew li aju ci wàllug wér-gu-yaram fokk ñuy jëfandikoo poon tabax wala bokk alcool sangara si war nañoo tey ndax loolu mën nañoo dem ba seen kaddu yàqu maanaam baat bi nekk ci ñoom ndax am na ay tawat yoo xam ni da koy faral di joxe Ndeye Khady Diop. dem ba mënatuloo wax sa baat suufe lool ngay noyyee ci sa put li koy waxal di cancer bu jàpp larynx bi ñu mujj la daal di opéré malade bi di nettali ni mu ko dikkee ndax li mu bëgg mooy ñëpp xam ne cigarette ak sangara bokk nañ ci li nga xamante ne dinañu indi cancer ci larynx bi ngir seen baat yi mën a jug tuuti ñu mën a wax ak seen nii ñu jëfandikoo benn appareil bu ñuy tuddee laryngophone ñu déglu ko léegi baatam naka la mel. c'est le cancer du larynx cancer moo ñu dal man nag depuis 2012 la commencé sama voix bi di faible su may noyyi respiration bi di tag affaire bi jaaxal ma muñ may naan ay garab wolof yi rek ma def ba un certain temps pour ma noyyi il faut damay ñaan ma ñëw rek ñu bëttal ma fii ci laa amee jàmm ma noyyi waaye bu noo béré da ngay perte voix man ni def leen ko tey bu ma demee ba léegi. mënuma wax sànni devant toi boobu feebar bi bu la dalee doo mën a wax boo mën wax rek doo doo bokk. ñoom malaat yi nag daal di nañuy taxawal benn association boo xamante ni mi ngi ëmb ñëpp ñi nga xamante ne dañu dindi seen laxañ wala ñu dem ba mënatuñu daal di wax ñi leen di faj di leen jàppale lool dem sax ba nangu ne njëgu paj mi métti na lool ci ndoddu malaat yi docteur Fallou Niang di interne des hôpitaux ci service ORL bu hôpital bu Fann. jafe-jafe bi mooy aussi coût prise charge bi parce que feebar bi xaw na cher yi te bu loolu weesoo dinañ def radiothérapie dinañ def aussi en même temps réhabilitation phonatoire loolu lépp apprentissage la te ay appareils yu war a utiliser wala yeneen pour laryngophone bi environ ay cinq cent mille lay jar donc loolu lépp dina xaw a diis donc jafe-jafe foofu lay ne mooy surtout amuñu appui dans la prise charge te aussi feebar xaw na bëri si dëkk bi. tey jii ci ak xames ji yamoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci la naroon waaye nag xew-xew bi dañu ko daal di li ko waxal moom mooy coronavirus bi. Euh, waaw lu at mu nekk dana am luy tolloog juróom fukk ñu yees ñoo xam ni daal daanaka ñu leen di faral di gis ci at mu nekk itam te ñi muy faral di dal itam mooy ñi nga xamee ne xëy na dañuy e, ja e, jëfandikoo matt matt yi tàkk saxar seeg yu demee noonu le wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu communication ak itamit euh, mu lu mën a jural daal moo tax taskatu xabaar yi adi animateurs yi avocat yëpp war nañ cee bàyyi xel itam bokkaale ci liggéey bi itam docteur Fallou a waxtaan ci ak Ndeye Khady Diop cancer de la reine si cancer la boo xamante ni si baat bi lay nekk si waxukaay bi particulièrement donc moom lañu tudde larynx muy appareil boo xam dafa ne si baat bi njëriñam surtout ci wàllu wax bi la nekk ak aussi ci wàllu nooyi bi am na ci njëriñ baax ak plus ou moins bi mandarga yi si gën a fës mooy baat buy dee baat bu dee bu tar bu xaw a yàgg si jigéen rawat na ñu ne day tux cigarette wala muy naan alcool te am ay juróom fukki at jëm ko rawat ci góor nag la ëpp lu muy amee ginnaaw baat bi dee boobu bu ba sori mën na waral nit ki am jafe pour nooyi nooyi boo xamante ni buy dugal ngelaw bi la yëg ni day diis bu ñaan diis na inspiratoire donc bu loolu weesoo tamit feebar bi dem ba sori mën na indi ay jafe-jafe ci lekk bi tamit mën na am ay donj yoo xam mën na feeñ ci baat bi ñaan ay adénopathie waaye li si ëpp solo daal mooy baat bu dee bi moom boobu moom bu ñëwee rek nit ki war na daw xool lan biir société bi moo xam ci ay xeetu liggéey yu ñuy def yoo xamante am. a nga forte chance pour am cancer boobu noonu wala nit nga xam day naan alcool donc alcool ak tabac ñoo si gën a ëpp bu loolu weesoo bon gis nañ ko aussi ci suñu mbokk jigéen ñi fii Sénégal ñu ko am mais loolu am na yu ñuy xaw a incriminé jàpp ne ci la mooy ñiy toggee ay matt ay këriñ saxaar soos noonu nekk lu yàgg mën na leen a waral loolu donc à côté aussi am na ñi nga xam ne ñaan les professionnels de la voix <laughs> nga xamante ne seen voix la utiliser seen liggéey wala enseignants yi à la longue na ñu def la ñaa ay laryngite chronique donc loolu aussi mën na dem ba indi ay jafe-jafe euh, cancer yooyu mais li ci am solo daal mooy facteur bi ñu gën a incriminer mooy alcool ak tabac moom moom moo ci gën a gën a fës alcool ak tabac ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo loolu ba seen i baat di dem ba dootuñu mën a ci xabaar yi ba léegi ci la ñuy daal di desandi am na benn sénégalais boo xam ne bii coronavirus daf ko dal moom nag mu di daanaka koo xam ne kii fii la fekk baax donte sax ca Italie la nekkoon ca euh, ñu ràññ ko juróom-benn fan ci weeru mars wi nga xam lañ ko gisee fee ca Touba ba ay bokki boppam sax dañ leen a fekk euh, daat leen di wërale ndomba euh, mbir ba des mën a yegg ca ñoom Amadou Moustapha Dieng coronavirus dal na ab doomu réewu Sénégal lu ni mel di guléet bi mu tàmbalee ba léegi fii ci réew mi benn moodu moodu la bu bawoo réewu Italie yegg si fii ci réewu Sénégal juróom-benn fan ci weeru mars bile mi ngi làq ci ay at lu toll ci juróom fukk ak ñaar te dëkk Touba jamono ji jile toxal nañ ko indi ko fii ci Fann ngir fas yéene koo faj Alois Diouf. am ñu benn cas suspect bu ñu bi biñ ko testé cas bi dafa positif ci coronavirus benn sénégalais la bu nekkoon Italie ñëw vendredi 6 mars fii ci Dakar jaare ko aéroport international Blaise Diagne mu consulté mardi 10 mars ëllëg sa bi mu seetloo ne commencé na am ay mandarga jàngoro gi bi mu consulté nag prélevé nañ ko ci centre structure de santé bi nga xam ne mu ngi foofu ci Touba isolé ko actuellement mu ngi ñu hospitalisé service maladie infectieuse bu Fann Aloïs Diouf moomule di xam ne ne jamono jilee Sénégal mi ngi ñetti kaa ndaxte doomu réewu Angleterre bu jigéen bi le nga xam ne doon nañu saytuwaat wér-gu-yaramam di xool ndaxam wér na am déet ci feebar bi lee jot naa wér donc ci bésu tey bi mun nañ wax ne Sénégal ñetti cas positif la am yu ñu hospitalisé di leen traité service maladie infectieuse ci noonu l muy gën a ñaax askan wi ñu gën bàyyi xel lépp lu jëm ci wàllu kaaraange xibaar bi jibee askan woowale sax lenn ci askan wi lii lañ ci xalaat. dëgg gu ma daal sénégalais am ko. ministère moo ko wax tey léegi nii. a sénégalais bu jóge Italie. am na waaw loolu fagaru rek gën a fagaru rek gën a fagaru set rek. di raxasoo loxo daal di di di raxasu tànk setoo moom. bon lu bëri mun na laa dal. bon c'est dommage ah c'est dommage. mos naa dégg si Serigne Cheikh Tidiane si wax. mu ne ñetti nit ñoo am. koo xam ne conscience lay utiliser. Mhm. parce que xam na devoir am koo xam ne il faut nga sensibiliser ko am na koo xam ne du demee conscience am boo ko sensibiliser du ko appliquer il faut que mesure sanction ñu ngi wax affaire sensibiliser ak nangam te amul suivi kooku c'est c'est parce que état dafa war a jël mesure état dafa war a am taxawaay jamono jilee ber nañu njabootu Modou Modou ba nekk ca Touba ngir saytu seen wér-gu-yaram fii ak fukki fan ak ñeent ñu ngi xool aw yaramam ba xam daal fan la yëf yi di mujj coronavirus boobu ba léegi fii kilifa yi nga xam ne ñoo wàllu paj gi ñoom mooy tamit ñoom daal ñu ngi taxaw temm rek daal ngir gën a dooleel seen mbir ngir xool bu baax ak di surveiller yu baax tam tawat yooyu la tuuti si. matuwaay yi nga xam ni moom la ñu taxawaloon moom moo tax ba ñu nemmeeku cas suspect test yi nag bi ñu ko amalee ba pare xam xamle nañ ni waa jooju moom dafa amee li ñuy wax coronavirus médecin chef district sanitaire bu Touba ak équipe bam di woyal li nga xam ni moom moo ci topp patient boobu di benn moodu moodu boo nga xam ni ma nga bàyyeekoo woon ca Italie juróom-benn fan ci weeru mars juróom fukki at ak ñaar la am moom nag jamono yi ñu toll mi ngi maladies infectieuses hôpital Fann bu Dakar docteur Mamadou Dieng médecin chef district sanitaire bu Touba di ñu ko xamal ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi di dalal xel di wax ni moom wér-gu-yaramam fi mu ne nii amul tiitaange jamono yi ñuy toll nag li ñuy def moom mooy nemmeeku képp koo xam ne rek patient boobu jege woon na ko wala mu am ak moom contact bi mu ñëwee ba jamono yi ñu toll ba tax na njabootam gépp fi mu nekk nii ber nañ leen district bu Touba sax am na appui Institut bi nga xam ni am na équipe bu indi ci biir Touba kii di médecin chef bi di wax nag ni dispositif bi dinañ ko gën a renforcer te it dinañ gën a sensibiliser doomu aadama yi jëm ci wàllu fagaru bi ay tàggat sax fas yéene nañ koo door jëmale ko ci personnel médical bi nee na nag li nga xam ni moo leen jaaxal mooy moodu moodu yi nga xam ni dañoo jóge bitim réew di ñëw ci biir réew mi di jaar ci tali yi te ñooñu dañuy ñëw rek dugg ci biir askan bi kenn du leen xàmmee xamuñu ndax yor nañ doomu jàngoro ji am déete ñooñu nag muy wax ni yi war yëpp ñu jël ko bu dee ci yeneen bërëbu fajukaay yi nekk ci Touba it matuwaay yi war yëpp jël nañ ko hôpital Ndamatou taxawal ci ay bés bala génn comité de pilotage jot a def nag ay activités yu bëri jëm ci fànn boobu ki nga xam ne moom mooy coordonnateur bi di docteur El Hadj Ndiaye di wax ni altine ba léegi ñi ngi tàggat personnel bi yëpp ngir xamale leen ak jàngoro ji bu ñu gisee cas suspect nan lañ def ak naka la ñu war a fagaroo yokku na ci it ni am na site de protection waaye tamit ay garab lu jëm ci wàllu sensibilisation yi nag am na spot boo xam ne ñu ngi koy dawal ci poste téléviseur yi nekk ci salle d'attente yépp waaye médecin bi di wax ni li ëpp solo fi mu ne nii moom mooy set ak cell goo xam ne ku nekk war nga sàlloo ak moom ngeen mucc ci Covid 19. Tuuti Sey Mbacke Sud FM. Euh, tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax programme bi nga xam dafa jëm ci yaatal te ñu war koo door yaatal gi nag dafa am. gën a jegale askan wi ak ñi nga xam ne tam ñoom ñoo war a euh, jëfandikoo wàllu impôt fay ay lempo ak yu demee noonu le euh, direction bi nga xam ne ñoo yor wàllu fànn boobule war ci indi ay leeral itam ba sax euh, tax na ki nga xam moo jiite bureau bi yële wàllu communication ci wàllu fànn boobule di Alain Paul Sène wax ko ci ak Baye Omar Gueye ci tënk bu ñu tënkee mën nañu mën nañu jàpp ñett ñett moyens yu ñu teg bu njëkk bi bu jiitu bi mooy nekk dañu gis ne impôt yëfu ñi am njàng ju sori ci wàllum njàngum tubaab te loolu euh, gis nañ ne mënul dox ndax réew mi ni muy doxee dañu war a adapté système fiscal bi ak ak ak ak réalité économique yi loolu bu ñu ko bëggee mooy foog ñu yombal dispositif bi ba nga xamante ne bu ñu waxee ne lii mooy yoon ci impôt ñi ko war a doxal comprendre ko ba mën ko doxal donc loolu mooy simplification mooy yombal yombal euh, euh, xamin bi ak ak doxalinu wàllum impôt euh, bi ci topp mooy communication ñuy ñuy waxtaan ak nit ñi vraiment parce que li ñëpp bokk il faut ñuy wax ñu koy waxtaanee mënul doon rek loo xam ñun dañuy ñëw rek di ko doxal ci kaw doole wala ci kaw ci kaw pouvoir yi nga xam yoon may nañu ko donc yooyu du ñàkk pour ñi nga xam bëgguñu daw doxal yoon waaye ñun bëgg nañ jiital waxtaan. troisième bi mooy wàllum téléprocédure parce que euh, euh procédure yi aussi des fois mën na mën na compliqué ba nga xamante ni nit dina bëgg a fay impôt waaye bu xalaatee fa mu war a jaar ak la mu war a def yëpp pour fay ko mën na jafe ci moom. surtout que si wàllu boobu secteur informel yéen ngeen war a capter. waaw secteur informel ñu ngi leen di waajal euh, euh, ci wàllum ci wàllum téléprocédure application am na ci benn boo xam mi ngi dox déjà ñu ngi ko duppee mon espace perso boobu dalay lay permettre yow sa dossier fiscal gi nga xam am na nga ko do euh, DGID nga accéder ci en ligne maanaam dañ lay jox benn application la boo xam da ngay am sa nom d'utilisateur ak sa code mën na accéder ci sa donnée yi nekk ci sa dossier fiscal physique bu DGID mm-hmm. waaye bëgg nañ gën a avancer ba nga xamante ne tey nit dootul soxla déplacé wu ñëw DGID pour def déclaration fiscale mm-hmm. nit dootul soxla déplacé wu ñëw ba DGID pour fay impôt ndax am na am na ay jumtuwaay yu fi nekk ñëpp a ngi koy dox ci mbirum transfert d'argent ci mbiru paiement électronique yooyu yëpp bëgg nañ ko yombal ba nga xam euh, nit la muy charge le coût euh, si vous voulez li nga xamante ni nit ki war na ko fay pour euh, rek matal la mu amee impôt ñu wàññi bu baax a baax loolu gën nañ ne buñ ci yeggee dina gën a yombal euh, dina gën a yombal euh, promotion civile fiscale ak consentement ca ndar am na jotaay buñ fa amaloon boo xam ne bii ci àllarba ji membre yi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaay gi nga xam ne comité scientifique la boo xam dafa jëm ci wàllu nu ñuy fexee daal ba tàbbal li ñu tuppee ceebu jën ci suñu ay mbiri bopp yoo xam ne daal dañuy tax àddina yëpp xam ne suñu yëfi bopp la am na comité bu ko amaloon ci teewaay lenn ci ay kilifa jëm ci wàllu fànn boobu la Yves Tendeng fexe ba dugal palaaw ceebu jën ci li nga xam ne ni mooy patrimoine immatériel bu UNESCO ngir mu doon moomeelu àdduna bi daanaka loolee mébatu ñi nga xam ne ni ñoo fi dajaloo fii ci ndar ngir waxtaan te wéccoo xalaat ci yan pexe lañ ci nar a demee kii di Abdoul Aziz Guissé mooy directeur bu patrimoine culturel. waaw dafa am lu ñu fi waxoon daaw bi ñuy def inventaire patrimoine immatériel. te ñu boole woon ci cosaan ak yeneen boole woon tamit ci lekkin yi boole woon ci ceebu jën. tey nag ñu engagé procédure bi ndax dañ ko bëgg yóbbu bind ko ci liste patrimoine mondial UNESCO patrimoine mondial lay doon humanité ñëpp bokk ko muy loo xam nag am na solo lool ndax fu ñu inscrire pizza di waaja a inscrire couscous marocain ñun bu ñu ko yóbboo tamit suñ ceebu jën bi ñu xam ne wax dëgg yàlla am na solo. muy bëgg bëgga bu nga xamee ni bokk na ci ñi ko fësal moo di rek ñi nga xam ne ni ñooy communauté yi te kii di Cheikhou jàkkite daal di leen fa teewal ci biir ndaje bi. dafa dugg si benn liggéey boo xam ne jëkkoon nañu ko def génnoon fii sax si biir région beeg yooyu demoon ba ay Podor ak yooyu léegi def inventaire patrimoine bi. ci biir inventaire patrimoine bi na def si am loo xam ne dañ ko tànnoon muy ceebu jën ceebu jën nag buñ ko xoolee ba si biir suñu valeur la ñun ñoo ko moom suñu culture la. tey jii lii di plaw ceebu jën daanaka bokk na ci luy dajale ay réew rawtina ay continent ci lu soxal ubbeeku ci aada yi. kii di docteur Massamba Gueye mooy coordonnateur bu comité scientifique bi ñu dënk liggéey bi lee fexe ba àdduna bépp nangu ne ñun ci toggin wi ci lekkin wi ci séddale bi am na noo xam ne dañ ci yaree nit waaye nag bind ko du rek bind ko ngir bind ko dañ koy bind ngir lépp loo xam ne cosaan la ak aada ñu gën ko bàyyi xel. tey jii ñoom ñëpp daanaka ñu ngi dund yaakaar ni waa kuréelu UNESCO daañu nangu boole bile plaw ceebu jën ci li nar a doon ëllëg moomeelu àdduna bi. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Dandin Sud FM jigéen ñi faat gi leen di faat wala violence fitna yi faral di am dafa bari lool lool lool euh, ci biir euh, Sénégal ba daal fokk rek nu am ñu wax ne fokk ñu indiwaat rek pen bo pen de la mort maanaam euh, peine de mort bi maanaam nga xam ne rek maanaam ku faat nu faat la loolu daal am na ñu ko wax donte yi tamit ñi ñuy faral dal ci seen kaw mooy jigéen ñi tar na lool aja faatu bari. rey jëf-jëf ju ñaaw Sénégal jigéen ñi ñu ngi wëy di dund ay jafe-jafe. bi ci mujj moo di faatu kii di Mariam Diagne amoon ñaar fukki at ak juróom amoon jëkkër tolloon ci ñetti weeru ëmb ñu daal di ko faat ci këram sa Thiès lii du sax jëfu nit ci yaakaaru xale bu góor bi ñu dajeel. ku nekk nit am na loo xamante ne doo ko mën a nangu si si penc mi kenn mënul nangu tey nga jàkkaarloog jigéen di ko rey. waaye leneen lu ñu gis moo di ne faat gu bëri gi day wane rek ne Sénégal ñàkk kaaraange bi mi ngi fi ne xuus waaye leneen lu ñuy waxtaanee moo di ndaxam ñii di jëf-jëf yu ñaaw yi ndax ñu ngi ànd ak seeni xel. man pour man loolu yow kuy def loolu amul xool su fekkee ni nit nit kese nga mënoo tiim nit sa moromu nit naan da nga koy da nga koy da nga koy jam toujours pour du ko mala sax soo koy rey am na nuñ la am na nuñ la waxee nga nga nga rendi ko pour rek juste bañ euh, métit bi mën ko kii mais tey nit nga tiim di ko di ko di ko jam ko ay yu bëri pour mu dee je pense que loolu kooku soit dafa feebar wala mu am ay ay troublement troublement parce que am loo xamante ne nit mënu ko mënu ko nangu xel mu nu ko nangu. ngir nag daan leen daan yu metti ñi ñu dajeel seen xalaat benn rek la moo di faaw ñu teg ay sanctions yu saf ba nga xamante ne keneen du ko xalaat a jëf. su nekkoon amoon nag man dañuy appliquer peine de mort. tey ku rey nit dañ dañ la dañ la war dañ la war a rey parce que viwu nit viwu comité bi xeex ngir jëf yu metti yi ñuy teg jigéen ñi wax na ne ci diiru fukki weer ak ñeent lu toll ci ñaar fukki jigéen ak benn faat nañ leen ci réew mi lii nag di lu tiis di tegaat ci taabal bi itam li ñuy wax peine de mort te mooy ku faat ñu daal di la faat te ñu bari jàpp ne mooy li war a am fii ci mim réew Eh, ci wàllu tàggat yaram équipe nationale u bi ak tamit bu jigéen ñi waaw ah, fii nu toll ni ñoom ñëpp daal amoon nañu ay ay ay lijaasa wala boog te ay trophée yoo xam ni daal yu ñu leen takk raay yu mag yoo xam ni daal ci compétition yi nga xam ni ak jongante yi amoon ci UFOA e ak tamit eh, ak coupe bi ñu ngi woon nag ci fédération sénégalaise bu football Birama Ndiaye. ci tàccu yi la ñaari équipe nationale yu Sénégal U20. ak daam daal di présenté ndam yi nga xamante ne jëlee nañ ko ca Arabie Saoudite ak yit ca Sierra woon ci kilifa yu jiite fédération sénégalaise bu football niki alarba ji équipe nationale gune yi nga xamante ne amaguñu ñaar fukki at nag ñoom ñoo daal di jël coupe arab ginnaaw bi nga xamante ne dañ leen fa prié woon ci loole ñu dugal fa fukki bi ak ñett daal di fa encaissé ñaari bal ñu gis ne itam ñoom lañu ñu jox meilleur buteur. lu jëm ci wàllup jigéen ni ñoom ñoom ñoo jël lii di coupe UFOA ci distinction yooyu kii di Mama Diop moom la ñu jox femme di match Sénégal Guinée jox ko itam Sénégal Nigéria ak it meilleure joueuse. la femme du match premier match Sénégal Guinée qui est Mama Diop qui est internationale mais qui est à l'extérieur qui n'est pas euh, ici qui sera représentée tout par Sénégal Seck de la commission football des jeunes. vous avez euh, femme du match de la demi-finale femme du match de la rencontre Sénégal-Cap Vert, Habib Baldé. pour ce tournoi, avant le trophée, la meilleure joueuse du tournoi c'est également Mama kii di Tening Sène di gardienne équipe nationale moom la ñu gis ne moom mooy meilleur gardien tournoi UFOA bile. man la Tening man nag meilleur gardien bi c'est la première fois ma nekk euh, gardien bi équipe nationale titulaire yàlla dogal ne son premier match contre Gambie la woon ñu demaat la même ma jël meilleur gardien euh, du ko sant yàlla bu baax a baax. lii di meilleure joueuse ci demi-finale bi nag diggante Sénégal ak Libéria. ak lii di ndam li jox nañ ko équipe nationale bu jigéen yi li ci noone président fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor ginnaaw bu mu leen sargalee daal di leen ñaax daal dina jox képp ku nekk ci ñoom benn ndampaay bu toll ci 500 000 francs kenn ku nekk ngir rek daal di leen jaajëfal Augustin Senghor moom sax moom ci boppam mu rek bëgg am daal itam gis xalaat ci ñaari équipe yooyu la daal ñu gën a jëm ca kanam gën a def seen liggéey fonk ko itam ñëw déglu ko ci micro bi Rama Ndiaye. waaw tey dañu am mbégte di daje fii euh, donc euh, ak suñu gaynde jigéen ñi nga xam ne dañu jógee Sierra Leone euh, indiwaale fa raaya bi njëkk ci wàllu li nga xam ne mooy footballu jigéen ci li nga xam ne moo jëm ci histoire du Sénégal defe naa équipe nationale jigéen ndam génération bi mu nekk sax mun naa ko génération diggante parce que li ñu wax transition loolu parce que dafa am génération bu fi nekkoon def ay jaloorem mu yem ci qualifié ñu coupe d'Afrique loo xam ne dul woon lu néew parce que bu leet la woon mu ñuy qualifié en 2012 ñooñu continuer ba benn moment ñu ne ah BTN bi ne il faut ñu indiwaat 109 indi ay xale tàggat leen maam Moussa Cissé jël lenge yi yàlla may ñu si seen gënn bu njëkk ñu ndil ñu trophée mu nekk trophée zone A mu nekk loo xam ne lu rafet lu rëy la euh, ñoom dañu dugal ci li nga xam ne mooy histoire yu football sénégalais fépp fépp ñuy mos a waxati trophée bi ñu njëkk a gagné ci football yu jigéen Sénégal seen tur la ñuy tuddee donc tey dañ war a wax rek vraiment waaw góor parce que si gir ngeen Sénégal koo xam ne ñun ñëpp weesu na suñu ndox donc euh, vraiment loolu euh, mooy message bu ñu leen a jox donc mais loolu daf leen sas nag beneen responsabilité mooy lan ñamal ngeen gaañi gagné il faut ngeen dëkk nag ci gagné te ni mu gën a gaawee mooy lan 2012 dañ demoon kan nañu demaat euh, incha allah donc si ñaari at yi di ñëw si kan bii ñëw commencé nag di gagné gaañi benn par benn ba jéem a yëg si bi parce que mën na ne mais am ngeen jot bi parce que équipe bu xale ngeen te ñun sigil mais mën naa ne yéen dugg leen yéen ñu sigilaat parce que commencé ngeen ñu tàmmal di dem ay final mais te commencé nañu téegi depuis deux trois ans dindi ay toofe donc mu nekk loo xam ne dafa baax ci football sénégalais donc may terminer rek wax ne fédération décidé na jagleel euh, maanaam ñaari délégation yëpp des primes d'encouragement de cinq cent mille francs boo xam ne ñëpp lañ koy jox pour que vraiment wan leen mais euh, vraiment kontaan nañu torop ci wàll bi nga xam ne euh, ngeen mu delloo li ngeen dënk mooy lan maillot national bi parce que li ngeen dënk ngeen delloo li ñu toofe Maodo Faye jërëjëf euh, Papa Lay jërëjëf itam mbokk yi ñu doon déglu foofu la xabaar yi wër léegi nag ñu toftal ci li ñu duppee Sud Nutrition.